contentement jël ak yéen chaque suba ngir indi leen di gën a fës si bopp xibaar yi ci noonu nag nuyoo bi dama ciy jiite borom kër gi Pape Thialis Faye ci turu équipe technique Leewtoo TV yëpp maa ngi nuyu Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk internet yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV rawatina ñi nga xamante ne bii heure bu nekk rek ñu ngi ñuy xaar ci revue de presse bi ñuy amal fii ci Leewtoo TV comme ni nga ko waxee rek di jaajëfal bu baax a baax suñu directeur général kooku di Pape Thialis di ko ñaanal jàmm ak salaam. Souleymane maa ngi lay fay di nuyu internet Leewtoo TV di amaat mbégte jàkkaarloo moom pour indi leen di gën a du mur des bancs en dur et autres l'école de lutte Balla Gaye 2 sommet du déguerpissement. mu mel ni day Mbacke noonu nga ko waxee noonu la école de lutte Balla Gaye 2 mu mel ni ñi ngi waaj a jëm ci ay jafe-jafe ndax école ba ñuy entraîner dañu leen fay waaj a génne te buñ leen fa génne mën nañoo nekk ci ay tolof tolof asan. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee dëgg la noonu la journal euh, suñu làmb xëy informé ñu loolu nee ne l'école de lutte Balla Gaye sommet de déguerpir maanaam ñoom ñi ngi doon entraîné depuis 2001 euh, datu création école ba boobu ba léegi ñi ngi doon entraîné ci école 16 de Guédiawaye bu Guédiawaye mel nag instant yi li fa xew moom mooy école bi mur bi dafa daanu banc yi fa nekk également dafa yàqu looloo tax directeur école boobu bëgg leen a génne foofu noonu loolu di jafe-jafe ci bi euh, monsieur Ndour di doomu Balla Gaye également addu ci nee loolu daal su antoo dina nekk lu garaaw ci école bi ndax dinañ perte seen base bi ñu amoon depuis bi ñu créé ba léegi. te ñëpp dañ leen a xamee ci école boobu ñu fay entraîner ba ñëpp miinee leen fa. dëgg dëgg dëgg la kuy dem ci école de foofu nga école de boobu ngay jëm directement donc bu leen déggee fiiree foofu dina nekk lu métti ci ñoom. Euh, Boy Dakar un ancien lutteur de Pikine pour battre Ama Baldé un proche de Modou Lô a remis 800 000 francs à un marabout. mu mel ni euh, Boy Dakar li mu xamle nee na euh, pour ñoom ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci Modou Lo pour ñu daane ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé am na kenn ku jege moo du loo yëkkati na lu tolloo ko téeméeri junne ak juróom-benn fukk jox ko benn sëriñ ngir rek du am ndam ci kaw Ama. Ousmane Diallo la tudd mbay Babacar ñu gën xam ko ci booy dakaar numéro 1 moom nag nekkoon euh, mbër ci école ci écurie Pikine ginnaaw bi mu jógee fa dem ci écurie ba Falaye Baldé moom nag lii dafa séq ak waxtaan wu yaatu ak journal euh, suñu làmb li mu fa xamle mooy kenn ci Modou Lo jël na 800000 jagleel ko benn sëriñ uniquement pour que Modou am ndam ci euh, Ama Baldé waaye wax na également ci diggante euh, Boy Niang 2 ak Ama Baldé nee na Boy Niang moo gën a technique seetaan na leen xam na leen mais Boy Niang moo gën a technique Ama Baldé wax na également seen ñoom ñaar nee na Boy Niang war a mag Ama Baldé ndax Boy na war na am ci. lu toll 3 33 wala 34 ans. Mm-hmm. alors que Ama Baldé 30 ans jàpp 30 ans et en a réclame. Gaston Mbengue sur Eumeu Sène Lac de Guiers 2 le avec 3 télé. Gaston Mbengue moom mi nga xamante ne bii moom moo taxawal diggante euh, Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 di combat bu amateur yi di bàyyi xel te di ko xaar mu mel ni moom nee na pare na pour 4 avril mu tëgg combat boobu wante tamit fas yéene na cee ànd ak ñetti tele ya nga xamante ne bii ñu ngi ci biir réew mi. dëgg la Mbaye Babacar loolu la Gaston Mbengue xamale tey li ngeen ko xamee moom moo tëgg combat Ama ba Modou Lo kii Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2. li mu fa xamle nee na nag pare na pour tëgg combat boobu la 4 avril waaye li mu ci teg nee Euh, commencé na promotion combat boobu te signé na ak ñetti télé yoo xam ne nii waroon ko accompagner ci euh, duel boobu nee na signé waa avec waa 2S avec waa ITV euh, avec waa RTS numéro 1 nee RTS moom mooy télé national donc obligatoirement day signé ak ñoom nee daal pare na pour tëgg combat bi le 4 avril en huis clos wala à à huis clos boobu. kon mën nañu maintenir le 4 avril Gaston Mbengue dina tëgg combat la guerre homogène écrasé par Forza gannaaw ba ko Forza daanee mbër mi lee nga xamante ne bii moo nekk écurie Waalo di Abdou Diouf fi mu toll nii euh, xam na ne waratu la def erreur ndax li nekk ci kanamam li koy xaar bari na trop asat amatul droit à l'erreur kooku moom mooy Abdou Diouf nekk ci écurie Waalo moom nag Forza moo ko daane woon ci le 24 février 2018. depuis boobu ba léegi amaatagul combat mais am na euh, dugg ñëwaatagul ci làmb ji waaye am na combat mi ngi war a daje ak Gris Euh, giri ci combat boobu mu jëm rek suñu làmb nee ne Abdou Diouf n'a plus le droit à l'erreur léegi nag euh, nee ne Gris 2 waaw bi Gris 2 Gris tamit dafa jàkkaarloo ko xam ne nii Gris 2 la woon Gris 2 Reug Reug moo ko daanoon le 15 juin 2019 mun euh, war a nekk combat boo xam ne nii ñi koy jëflante ñaari defet leen jógee ku nekk ci defet nga jógee donc ñoom ñaar ñëpp kenn amatul droit def beneen. kon ñoom ñaar kenn amu ci droit de perdre combat bi. ku ci teg perdre combat bi rek di nga tegle ñaari defet te du baax ci sa carrière. te boo tegalee ñaari defet jàppal ne yaa ngi ci biir saako yi. yaa biir saako yi te génne fa génne la fa du yomb. kenn dootu la may loxo. <laughs> Daabu Texas potentiel adversaire mu ne je vise Ndiagas de l'écurie Bawol Mbooloo. Daabu Texas lim ñu xamal mooy adversaire bi mu teg bët. ki mu bëgg a ki ko teree nelaw ki nga xamante ne bii tey buñ ko joxoon avance am mu dem jënd ci sandwich reere ko moom mooy ki nga xam ne moom mooy ñagas ni nga koy waxee nag mbër bu xamee adversaire am day neex a wutal combat man bëgg naa loolu ci mbër Assane. je vise ñagas loolu la daa bu Texas wax moom nag nee ne ñagas rek moom moo ko teree nelaw ñagas mu ngi nekk ci écurie bool mbooloo mhm. nee na nag euh, waxtaan la séq ak suñu làmb mais ñëwaan na ci benn tournoi bu mu defoon ci Casamance nee na dafa demoon foofu di bëre ci benn tournoi tournoi boobu ay village ñoo ko doon def moom nag mi ngi doon bëree ci village u Daboulé village boobu la doon bëreel mais nee na lu ko ci gën a neex ci tournoi boobu dafa dem daane fa mbër boo xam ne nii kenn su ko daane moom mooy lacrymogène mhm. moom la fa daane lu mu nekk mbégte ci moom nee na nag euh, daa ñëw revenir na ci carrière am na am na 9 combats 5 victoires 3 euh, défaites ak benn sans verdict. benn sans verdict. te loolu la ñuy desandi ba léegi en 5 combats. Ibra Ngabou sa prépare Mbaye Babacar. mel ni sama mbokk bawol bawol la mi ngi tegle cinq combats am ci cinq victoire euh, mi ngi waajal digganteem ak Jaw 2 di mbër ma nga xamante ne bii nag. muy Ibra Ngabou mbër mu jar a bàyyi xel la ndax mi ngi ci dynamique ba nga xam ne macha allah euh, dynamique bu baax la Assane. dëgg la euh, Babacar Ibra Ngabou mi ngi nekk euh, écurie parcelle mbooloo parcel mbooloo foofu la Franc nekkoon ak Moussa Dioum maam les di seen coach Ibra nag nee na journal suñu làmb nee na Ibra Ngabou prépare à maté Diaw 2 maanaam pare na pour daane daan. Euh, dóor duma daan euh, mbër mi di njaw de nee na nag euh, Ibra Ngabou am na cinq victoire cinq combat mi ngi jot naa daane Samba Ndeleng de Issa Tine doomu Pakaaw Baboy ak gaaroo gaar lu mujjee bëre ñu ngi doon bëree le 4 mai 2019. may Babacar ba léegi Onde le Fou rejette le bloc des billets. Onde le Fou Serigne Riana journal bi sekk na ak moom waxtaan wante moom ba léegi li ko metti mooy promoteur yi nga xamante ni bii dañuy jël ay billets di ko jox mbër yu ndaw yi di leen ko jaayloo mu mel ni avance lañ leen koy jox nee daal benn mbër waratu la nangu ñu jël ay ticket di la ko jox mbër yëpp war nañoo àndandoo bañ loolu nga xam ne promoteurs yi dañ koy teg ci seen kaw. dëgg la Babacar euh, Onde le Fou moom mooy jiite association boobu nga xam ne jeunes euh, lutteurs yi ñoom ñoo ko formé moom nag dañ ko invité woon ci benn émission bu doon am ci Walf émission boobu Pape Alioune moom moo ko doon euh, animé. Euh, Oncle Fou li mu fa xam ne nag mooy que ne benn lutteur bu ndaw waratul accepter promoteur di la jox ay ticket nga koy jaay nee na loolu de suuxal làmb te kenn waratu ko nangu ci làmb ji te dafa metti nag mbër bu ndaw ñu lay jox ko ñu lay am combat ba pare ñu yëkkati ay tiggee jox la pour nga dem jaayi pour mën ci génne sa avance day metti souvent les sa supporters yi ñoo lay jàppale pour la man la jàppale nga mën ci génn parce que souvent ci yooyu lan lay fay li ngay tigge yooyu ngay jaay boo demee promoteur bi moom lan lay fayee sa avance yin lay yin la yin la desal te loolu nekk na lu ay jafe-jafe ci mbër yu ndaw yi xanaa ñuy invité promoteurs yi rek ñuy invité loolu parce que jëmalul làmb kanam dëgg la mënu la tax mu bañ ko mooy dafa gis ne loolu exploitation la moo tax mu bañ loolu mu koy xeex Yékini Junior bi toujours Gris Bordeaux. Yékini Junior euh, ku nekk xam na ne fi mu toll nii ki mu teg bëtam mooy le tigre de Fass Gris Bordeaux mi nga xamante ne bii moom mooy magu de 2. ni Junior daal ki ko teree nelaw ki nga xamante ne bii moom la bëgg jël avance am mooy Gris Bordeaux xëy na nag dafa am lu mu yaakaar Assane. loolu la journal bi wax Mbaye Babacar. Yékini Junior vise toujours Gris Bordeaux moom naa ne journal bi daal nee na Yékini Junior Gris Bordeaux moo ko teree nelaw nee na nag looloo tax Yékini Junior dem États-Unis depuis quelques semaines wala lu jege weer nekk si États-Unis di préparer combat bi di préparer saison bi uniquement pour bu euh, amee euh, Gris Bordeaux man ko daane daane bu leer a leer a leer ñu fàttali nag ne euh, Yékini Junior dernier combat am Tapha Tine moom moo ko daanoon. ci tafaatin la jógee ba léegi dañuy desanteeg écurie Balla gay 2 écurie Balla Gaye en renfort par ñaas ñaas mbës. mu mel ni ñoom dañoo yokk cere dollu ñeex écurie écurie staffu école de lutte ball Gaye 2 mu mel ni ñagas ak euh, euh, mbës ña nga fa dëgmal. dëgg la Babacar ñaas ñaas Pilito ak mbës ñoom ñoo renforcer. staff bu staff technique bu écurie wala école de lutte Balla ah. ñaar ñii nag dañoo ñëw pour renforcer eh, kii bi eh, staff bi Lamine Gola moom moo nekkoon seen coach bi xam naa dina ñëw eh, jàppale ko ci liggéey bi information bi nag monsieur Ndour di doomu Balla Gaye moom moo ko siiwal. Ah. ba léegi le retour guetté d'Ablaye Ndiaye de Dakar. ab Ablaye Ndiaye moom bi nga xamante ne bi doomu champion la doomu mbër la doomu Robert Ndiaye la sekk na waxtaan ak euh, journal bii di suñu làmbaasam ab Ablaye Ndiaye xamoon nañ ko bu baax a baax ci lutte simple mu commencé woon di def ay pas ci lutte avec frappe mais tamit da ci am ay jafe-jafe ba réer léegi nag journal suñu làmb nee ne euh, njortu nañ ne Ablaye Ndiaye mi dina dellu nekk écurie Ndakaaru bu mu nekkoon écurie nag moom moom nag moom mooy fils su Robert Ndiaye Robert Ndiaye di nekkoon mbër mu xarañ mbër mu mag ñëpp xam ko moom mooy également frère Mamadi Ndiaye Mamadi Ndiaye kenn dootu ko présenté ci lu simple. Babacar. record lañ jëm lutte mu da Modou Lo à Tapha Tine les cinq succès de Balla Gaye entre 2013 et 2013. dans 2010 et 2013. mu mel ni euh, journal bii di record daf ñoo ñëwal ci euh, gëstu bu yaatu ci mbër mi di Balla Gaye 2. Euh, defal ñu benn taxaw seetlu entre 2010 ba de 2013 euh, succès yi nga xamante ne bii euh, le Lion de waaye am na ko fi journal bi yaatal na ko bu baax a baax Assane. dëgg la Babacar record moo ñëw ci jàngat boobu def ne de Modou Lo à Tapha Tine les cinq victoires de Balla Gaye Balla Gaye de 2010 à 2013 daane na ci Modou Lo bu loolu mi ngi ko daanee le 21 mars 2010 daane na ci Baboy le 1er août 2010 daane na ci Tyson le 31 juillet 2011 daane na Yekini mooy seen combat royal boobu le 22 avril 2011 daane na également Tapha Tine le 2 juin 2013 cinq combats yi daal nee ne journal bi nee ne Balla teg teggale na ko de 2010 mu mel ni kon ci ñetti at yooyu Balla Gaye def na ci wone na ci jaloore jaloore bu rëy. waay waay na ko wala wala wane <laughs> xanaa jaajëfal bu baax a baax waa Jurbel sama dëkk di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm. asalaamaaleykum. Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa Linguère di jox dig daje internetu Leewtoo TV di remercier également Yacine. ba suba ak jàmm incha allah. naa la jaajëfee équipe technique Leewtoo TV Mansour ci caméra bi Yacine Fall bëgg naa la bu baax Ousmane di bëggee sama ñaari sama ñaari sama ñaari laqare yi sax laa wax Assane Waar ak Baye Babacar di jaajëfal internet Leewtoo TV lii moo nekkoon di gën a fës ñoom ñoom ñu daje ëllëg ci Leewtoo TV.